jërë jëf yéen ñi nga xamante ni yéenay seetaan lii di Rewmi TV dalee nag si seen émission euh, biir réew mi comme ni ñu ko defee saa su nekk rek ñuy lépp li nga xamante ni moom moo ñeel biir réew euh, ko ci politique ci économie euh, santé bien-être lépp loo xamante ne daal askan wi ci war a gis seen bopp rek moom la ñuy andi fii seen émission biir ci biir Rewmi TV ñu waxtaanee ko tey war a dalal ki nga xamante ni moom mooy Djibril Diaw nekk expert en sécurité nekk aussi responsable politique PLD Suxali li nga xamante ni mooy yëmbal sud ñu waxtaane tey nag wàllu sécurité waaye tamit nañ wax euh, ci wàllu euh, politique fa nga xamante ni euh, fa la nekk muy yëmbal sud ci li nga xamante ni moom mooy activité ci wàllu politique bi ak lépp loo xamante ni moom moo ñeel bi yëmbal sud moom la ñu war a waxtaane tey ci seen émission biir réew mi laata ñu dugg nag ci biir waxtaan bi dañuy daal di bàyyi suñu invité mu daal di nuyu ak ñi nga xamante ni seetaan ci Rewmi TV monsieur Diaw ñu ngi nuyu baax baax waaw Mor maa ngi lay sant di la gërëm di am contentement bu rëy ñëw wii si leen si seen studio biir réew mi et di nuyu techniciens yi ma fekk fii yëpp di nuy borom borom euh, télé bi borom kër gi di nuyu waa population de Yëmbal en particulier la population de Yëmbal Sud bon j'espère que di ñaan yàlla rek émission bi liñ si lépp luñ si waxtaanee rek mu jural njëriñ askan bi ko voilà donc ñuy fa ñëpp di euh, ñaanal ñëpp ci weer bi xamante ne seen dugg muy weeru gàmmu yàlla defal ñu lu dugg ci bismillaahi euh, rahmaani rahiim génn si alhamdulilah rabbil alamin donc dañuy euh, dugg suñu première partie ci émission bi ñu war a waxtaanee wàllu sécurité ki ñu daal tey nag laataal yi nga xamante ne mooy wàllu politique bi moom expert en sécurité la donc ñu daal di koy laaj rek ci wàllu sécurité daf ci Sénégal dañuy wax sécurité te bu sécurité dañuy. dañuy xalaat ci benn euh, côté rek donc bu ñu mënee wax ci nga xamante ni mooy wàllu euh, sécurité euh, bi nga xamante mooy sécurité publique ak li nga mooy sécurité privée bu ñu mën defal benn benn distinction ci ñaari ñaari fànn yooyu lan moo wutalee li nga xamante ni mooy sécurité privée ak sécurité publique. <coughs> waaw Mor question boobu dafa nekk question bu am solo parce que dañ sécurité publique ak sécurité privée publique c' est du domaine c' du ressort de l' État mooy li ñaan naan les de défense de sécurité euh, sécurité privée. kooku seen dérogation faite par l'État à des entreprises comme nous pour l'assister dans sa mission de sécurité publique donc ñun dañuy ñëw di gën a renforcer État mais loolu mooy différence yi donc euh, sécurité privée ñun ñi nga xam ne ne ñun on est des experts dedans parce qu'on a l'autorisation de fonctionnement délivrée par le ministère de l'Intérieur donc loolu day wane ne rek euh, sécurité privée day ñëw en appui en renfort ak sécurité publique bi xam ne moo nekk déjà en place. ci naan la sécurité que euh, gis nañ ne Sénégal yi ñuy créer yoo xamante ne mën nañu wax ne ko boole ci sécurité publique lu ci mel ne ASP ak yeneen yeneen mais yéen ñi nga xamante ne yéen nekk ci secteur euh, privé bi ci ban côté ngeen ci ban ngeen di ñëwee pour renforcer yi nga xamante ne mooy wàllu sécurité publique waaw ce qu'il faut comprendre c'est que. dans tous les pays du monde amul benn état bu mën a jël benn police wala benn gendarme teg ko ci ginnaaw citoyen donc tey bu ñu defee sécurité privée sécurité privée tey am na yenn mission yi nga xam ne ne du ay mission régalienne donc police ak gendarmerie soxla ñu koy def donc sécurité privée bi ñoom ñoo koy def donc muy comme les surveillances dans les dans les dans les résidences les surveillances dans les maison <coughs> mu nekk aussi li nga xam ne ne benn force en renfort bi nga xam ne moom mooy ñëw di appuyer li nga xam ne moo fi nekk donc comme l'État ne peut pas assurer la sécurité de tous les citoyens parce qu'on peut pas mettre un policier ou un gendarme derrière chaque citoyen à un moment donné les citoyens sont obligés de recourir à la sécurité privée pour mën a aar seen euh, seen euh, pour ñu mën a am benn euh, aar seen dëkkuwaay aar seen nekkin et puis ça ça va permettre mu nekk force de renfort par rapport ak sécurité publique bi. mais mais boo nee boo nee euh, mun ñoo teg fu nekk benn policier ndax yéen day war a mën liggéey comme liggéeyu police wala yéen seen liggéey ça n'a rien à voir ak liggéeyu police ak liggéeyu gendarmerie ak yu ni mel. il faut faire vraiment la part des choses parce que bu ñu nee les forces de défense et de sécurité ñooñu ñoo yor la naan la puissance publique. ñun euh, des fois les gars ils font beaucoup d'amalgame sécurité privée agents yi koy def yi ce ne des agents assermentés. assermenté mooy ki nga xam ne ne au moins lépp lu mu wax ni war nañ ko mën a gëm xam nga donc à un moment donné ce qu'il faut comprendre c'est que sécurité privée bi dafa am ay limites dafa am fi nga xam ne aussi fol lañ foofu la ñu loi bi yemloo donc nag à un moment donné les agents privés qui se prennent pour des gendarmes ou bien pour des cow-boys l'expression ñoom ñu ngi def li nga xam ne du seen liggéey léegi ci ci wàllu woowu euh, ci sa entreprise bi nga xamante ni moom moom nga yor euh, ci yan fànn ngay gën ngeen ngi gën di ñan ngay ñan ngay gën di liggéey ndax euh, da ngay liggéey wàllu waa police liggéey ak waa gendarmerie wala juste yow da liggéeyeek liggéey ak wàllu particulier rek ñi nga xam ne ñoom soxla sa ses services nga ñëw kii jox leen sa service ngeen moom ngay def. waaw xam nga tey moor ce qu'il faut comprendre ñun man structure bi may diriger bi muy Cristal Sécurité dafa nekk benn société bi nga xam ne elle intervient dans plusieurs on fait de la sécurité privée, on fait de l'intervention sur alarme, on fait du contrôle d'accès, on fait, on fait de la protection rapprochée, on fait de la protection des hautes personnalités. Donc, yëpp dafa il li nga xam ne dañ koy def mais lépp loo gis dafa am li nga xam ne noonu lay demee donc tey bu ñu ne par exemple gardiennage gardiennage sa peut mën a nekk li nga xam ne moo nekk si kër yi mën a nekk si immeuble yi mën a nekk si si usines yi euh, mais loolu loolu lañ naan sécurité statique c'est-à-dire ñoom taxaw pour surveiller benn mission bi moom lañ leen sant après bu ñu duggee si par exemple ay sécurité protection rapprochée ak affaire yooyu yooyu dafa xaw a gën parce que yooyu la formation elle est beaucoup plus adaptée pour euh, assurer karange nit ki nga xam ne mooy autorité bi nga xam ne moom lañu ñu yor. donc nag yooyu bu ñu ko naree développé fi fii on n'aura pas trop le temps mais jàpp leen ne rek ne sécurité bi dafa am ay pàcc yu bëri yu nekk ci biir. donc nag bon tey y a des on fait aussi de l'audit on fait du conseil donc yenn saa yi aussi état dinañu soxla si yenn si yenn waxtaan yi ñu indi si suñu xalaat aussi pour au moins ñu xool nan la ñuy jéem a développer sécurité privée au niveau du Sénégal. mais man léeg-léeg benn kii bi la ñu may benn question mooy li nga xamante ne moom mooy à chaque fois euh, bu euh, wala état dem ci wàll li nga xamante ne seen wàllu ay euh, lu mel seen ay dem ci terrain bi wala ñuy def ay lu mel ay visite de terrain dafa mel ne duñ fa la jël police wala gendarmerie entreprise yi euh, ñu envoyé leen ay gros bras wala ay ay gardes rapprochés ngir ñu liggéey ñoom euh, ndax euh, dafa nekk rek ñoom police loolu nekk seen spécialité wala juste yéen dafa dafa am loo xamante ne peut-être moom moom ngeen xam loo xamante ne police xam ko moom boo waral ñu ñëw ci yéen di rapproché wu ñu ngeen di fournir ay ay gardes rapprochés ay gros bras yu mel. non gis nga moo il faut faire très attention parce que des fois on entend parler de nervis xam nga si déplacement yenn kii yeeg affaire les gros bras mais sécurité tey privée man j'en ai même parlé j'ai même écrit au ministre par rapport à ça pour ne ko on peut essayer de trouver une solution par rapport à ça c'est-à-dire au lieu ñuy recruter les gros bras comme ça ñu ñi nga xam ne ñoom la ñu tuddee les nervis normalement on doit impliquer les sociétés de sécurité privée c'est-à-dire man tey avec l'autorisation bi ma yor tey bu ma laaj sécurité privée man bu ma jëlee ay nit yóbbu ko tey bu nekkee ñooñu dañoo dem di dóor ay doomu aadama c'est ma responsabilité pénale qui sera engagée en tant que mais nag euh, dafa am benn dysfonctionnement bi nga xam ne boo tey nag nit ñaa ngi si waxtaan parce que bon des fois on voit yenn laisser aller yi si terrain bi bon yooyu nag am na ñu nga xam ne dañ koy def te kenn digalu leen ko donc nag à un moment donné la responsabilité pénal elle est pas collective elle est individuelle donc nit ku nekk lépp looy def te santuñu la ko après demain bu sa responsabilité pénale engagé woo tu vas répondre de tes actes donc nag moo tax y a beaucoup d'amalgame nit ñi nga xam ne ne ils arrivent pas à comprendre la frontière entre sécurité privée ak sécurité publique bi te ñu bëri dañ leen jël dugal leen ci sachant que voilà c'est des gens qui n'ont jamais fait la sécurité parce que la sécurité du yëfu doole la sécurité c'est avant tout c'est de la prévention parce que du du entraîné nga am nga doole rek da ngay def sécurité et boo demee bay dóor nit yow tu fais plus de la parce que tey da ngay xool nan ngay jéem a aare nit ñi ba nga xam ne lépp li nga xam ne menace la nga xam ne du dal si kii nga xam ne moom ngay protéger mais bu nekkee ne da ko jóg nga dóor xëcc yat dóor fii bon là tu crées plus un climat d' insécurité qu' autre chose. Euh, ci wàllu euh, sécurité yooyu bu mel ne yéen da ngeen def li nga xamante ni mooy diagnostic bu benn entreprise ñëw ngeen xool entreprise bi euh, fan ak fan lañ lañ war a mën a sécuriser ngir ñu bañ am yenn jafe-jafe lu ci mel ne banque bu ñëwee taxaw banque ni ñu ko war a sécuriser ak lu ci me ne entreprise yu rajo wala télé bokkul. yéen boobu ku ñëw ci yéen ne damaa bëgg nga sécuriser ma benn benn genre banque. Hmm. ndax dafa am benn genre bilan boo leen def xool accès yi ak affaire fu nekk ngeen ngeen xool ban façon sécurité fu ma teg wala juste euh, moom dana leen gardiennage daa soxla rek ngeen ñu dafa jox gardiennage. waaw non xam nga aussi à un moment donné il faut il faut faire euh, tey mënoo ñëw rek. ñu ne la cas yi nga sécuriser ñu réew mi rek dañoo soxla gardiennage rek nga ñëw indi fi benn agent il faut faire d'abord une étude de de terrain da ngay ñëw xool def visite de terrain xool d'abord établissement bi lan la soxla parce que y a des y a yaa xam ne ne foog nga sécuriser ko bu nekkee ne benn entrée la nga xam nan nga fay toogee parce que tamit du ñu jo ñun noonu la ñuy liggéey en tout na nag am na ñeneen ñuy liggéey noonu mais ñun noonu la ñuy liggéey c'est-à-dire bu ñu nit laajee devis wala ñu laaj une offre financière on essaie d'abord de se rendre sur le terrain ñu xool d'abord lan la ñu war a mën a sécuriser d'abord parce que yenn saa yi nit dina leen soxla ñetti agent fekk na yow gis nga ne benn agent rek doy na fa wala yenn saa yi nekk ne dama soxla benn agent fekk ne moom lu mu war a sécuriser il faut trois ou quatre agents yi nga xam ne ñoo nekk foofu parce que bu nekkee ne des fois dafa am ay cinq wala six entrées ba nit ki benn nit rek mënul gérer loolu donc nag à un moment donné il faut quand même ñun tamit ñu xool li nga xam ne mooy suñu liggéey dem si client bi xool lan mooy besoin am jël cahier de charge bi ba pare def visite de terrain avant ñu koy promettre benn offre financière. ndax sécurité bi dafay yem ci nit ki wala am na yenn façon sécurité yu ñëwaat yu toftal ci ci à nit ki nga nekk présence physique. non xam nga nit ki moom mooy la centre mais sécurité tey dafa dafa yaatu parce que tey dañuy wax sécurité électronique di wax ay géolocalisation des personnes des biens. tey am na ay puces yi nga xam ne bu ñu ko dugalee si nag sax tey bu nag bi réeree ñun mën nañ ko mën nañ ko localiser tey am na ay puces yu gars yi di dugal si oto yi tey sa oto ku ko sàccoon tey nar ko yóbbu même bu demee bu génnee Thiès xam nga ne génn na Dakar mun nga ko fay à distance donc yooyu dafa nekk affaire yi nga xam ne ne euh, tous les jours bi ñuy avancé affaire bi day gën a yokk parce que boo xoolee ne am na affaire bi nga xam ne introduire nañ ko muy les fiches de police euh, les fiches de police dans au niveau du Sénégal parce que avant da doon ñëw ñu euh, nga joxe sa tour ñu bind ko si papier bu demee ba semaine bi jot fin de semaine ñu yóbbu ko police centrale mais tey dañoo révolutionner affaire yi parce que tey boo indee sa pièce d'identité wala sa passeport ñu scanné ko les données vont aller directement sur les bases de la police et loolu les gens qui par exemple ñi nga xam ne dañuy nekk si terrorisme wala ñu nga xam ne dañu leen recherché wala ñi xam dañoo dañ leen blacklisté ñooñu au moins euh, toutes les informations day yegg à temps réel au niveau de la police. yow sa xel màcc ci wàllu sécurité ci ci fànn yëpp. Hmm. Euh, Sénégal à chaque fois ñuy wax naan euh, dafa menacé ci wàllu terrorisme ci wàllu ñi nga xamante ne terroristes yi ñu ngi fi waay dugg ndax yow jàpp nga le Sénégal ndax. mun na mucc ci wàllu euh, li nga xamante ni moom wàllu terrorisme parce que dëkk yu ko wër yëpp ñu bëri ñoom euh, loolu dal na leen donc fu mu nekk nii yow ba ban ban xaar nga am ci loo xamante Sénégal bu nga ko defee dinañ mën ci li nga xamante ni mooy nga xamante ni tout frontière rek wax. waaw gis nga moo dañuy ñaan yàlla lool bañ fee mës a dal parce que ñun ñëpp ay sénégalais lañ mais li nga xam on n'est pas à l'abri parce que wax naa ko benn jour benn journal de la place on n'est pas à l'abri d'une menace. parce que tey pays yi nga xam ne ñoom ñoo ñu gën a ñoo ñëpp doole foofu muy France ay États-Unis di ay Allemagne ñoo ñëpp ku nekk jot nga sa wàll parce que y a eu des attentats terroristes donc tey bu ñu nee Sénégal on est à l'abri on est en train de se leurrer dañuy nax suñu bopp mais c'est que ñun nag des fois on a l'habitude de jouer avec la fatalité euh, boo waxee ñu ne noo fii dëkku diine la fii dara du fi am yooyu mais fokk yenn say affaire bu bu demee ba affaire bi xew c'est là quand la ñuy nekk en face d'une situation bi nga xam ne kenn souhaité wu ko ñun li ñuy ñaan daal mooy suñu autorités yi par rapport aux surveillances au niveau des frontières ñu gën ko renforcer parce que là même déjà am na ay tablettes yi nga xam ne génne woon nañ ko euh, yi nga xam ne dafay am empreinte digitale parce que boo xoolee ñu ngi si espace CEDEAO espace CEDEAO dañ des personnes et des nit ñi dañuy duggee noo neexee di génne noo neexee mais bu ñu amee yooyu avec empreinte digitale yi tey dinañ xam ñan ñooy dugg si dëkk bi dañ xam ñan ñooy génn parce que boo ñëwee si frontière bi boo dugalee boo tegee sa loxo si empreinte bi dina la génne sa fiche d' te loolu di nga xam ñan ñooy dugg ñan ñooy génn bu nekk ne y a des personnes qui sont recherchées ailleurs ñooñu tey bu duggee si frontière bi au lieu que ñuy jaar ay Tambacounda wala di jaar feneen bu ñu tegee seen loxo si empreinte dañu xam ne kii dugg na si dëkk bi mais nag euh, lépp loo gis tamit te tey Sénégal aussi euh, on est bàyyiwuñ suñu bopp. boo xoolee au niveau des frontières on a li ñu ay ay ay ay ay Garci Garci benn compagnie gendarme gendarmerie la bu Sénégal ñoom ils sont formés pour pour ça également mais nag buñ ne on est à l'abri li ñuy def kay mooy ñu gën a yokk suñu taxawaay parce que les terroristes ils ont changé leur mode de fonctionnement avant da doon gis benn jihadiste nga xam ne sikkim bu gudd la woon tubéy bu gàtt ba gars yi di ko man je parle au la France man je parle après je vais faire la corrélation entre Mais foofu yaa y a ce qu'on appelle 26 000 personnes qui sont fichées S, c'est-à-dire signalées. et foofu comme on a li ñu naan DG DGSI benn service bi nga xam ne moom moo yor renseignement intérieur te terrorisme du xeex cest à di renseignement la renseignement moo lay dimbali pour nga xam nit ki lan lay fexe pour nga mën ko see jiitu. donc nag tey Sénégal aussi boo xoolee on a pris nos dispositions mais il faut ñu gën a dolliwaat. Euh, les le contrôle au niveau des frontières pour que au moins ñu mën a xam seen euh, mode de fonctionnement seen mode de repérage ak ni eh, nit ñi di duggee ci biir nit ñi. di taxaw nit ñi mu wóor na la kii dafa am beneen idéologie beneen dogme bi nga xam ne ça n'a rien à voir li nga xam ne moo fi xew xam nga ñu mën a bàyyi ci ñoom xel et puis boo leen xoolee tribunal Dakar. bu nit ñi ne terrorisme amu fi c'est pas vrai si am na fi il a des gens qui ont été condamnés pour acte de terrorisme et donc je pense qu'à un moment donné li ñuy def rek mooy ñaan yàlla rek euh, yàlla suturaal ñu te musal ñu si lu mel noonu quoi. mais ci ci fóolu est-ce que est-ce que wàllu euh, terrorisme dafa yem rek ci frontière parce que Sénégal à chaque fois bu ñu nee wàllu terrorisme yenn kii am yu bëri du nekk ci frontières yi mais juste euh, ci biir dëkk bi lay am. Hmm. donc fu nekk nii euh, ndax dafa am beneen genre stratégie bu ñuy wote boo xamante ni ngir mën identifier. Hmm. yenn tentative yi nga xam ne ñu ngi koy def ngir mën a teel teel koo lijjanti euh, teel a mën a xam ndax ñii lii la ñuy waajal wala juste. dafa am ñeen ñoo xamante ñoo am liggéey boo xamante ne si li mën a am yenn renseignement euh, xam ngi jaar ñu mën a xam ne diw mi ngi préparé léegi lii waaw mais xam nga au niveau de la France c'est un peu compliqué parce que foofu y a un sentiment de frustration parce que boo xoolee France euh, pratiquement jeune yi def attentat yëpp c'est des Français mais ñoom xëy na li ñuy gis ci yeneen pays naar yi li ñuy li leen li leen nit ñi di dundal loolu moo leen metti moo tax ils ont décidé de prendre les armes des Français donc même si ay naar lañ mais c'est des français ils sont nés sur le sol français c'est des français mais tey <clears throat> boo xoolee lépp à la base yëpp boo dégg may wax frontière c'est que renseignement la parce que tey l'État tamit du dévoiler euh, li nga xam ne noonu lay liggéeyee mais renseignement bi tamit dafa am solo mais nag euh, à un moment donné munoo ne nit ñi tamit duñ joxe seen soxla wala nga gis ku yor sikkim bu nga ne terroriste la non c'est que euh, terroriste dafa parce que tey boo xoolee li nga xam ne moo xew si sous région bi parce que boo déggee ñu naan la il faut que ñu gën a renforcer frontières yi c'est que dafa am benn idéologie idéologie dafa am nit bi nga xam ne moom moo koy dugal si biir sa biir dëkk donc nag loolu nag pour que loolu nga mën see bàyyi xel il faut qu'à un moment donné kan ak kan mooy dugg sa génn et boo demee ba à parce que boo xoolee réew dafa mel ni kër

c'est-à-dire comme li ma ne euh, les frontières sont poreuses c'est-à-dire bon dugg ak génn la mais nag euh, terewuñ kenn mu dugg terewuñ kenn mu génn mais il faut que quand ñun ñu mën a sécuriser suñu population si c'est-à-dire ñu xam ñan ñooy dugg si dëkk bi Donc je pense que ça c'est important. Et là, si arriver à faire ça dans un premier temps, on aura gagné un grand pas par rapport à, la lutte contre le terrorisme. Je pense que président Macky Sall moom dégg na loolu <coughs> nga xamante ne si loolu la ñuy kii sa dugg ci wàllu politique bi mun nañu wax ne yow euh, candidat nga woon fa nga xamante moom moo yóbbal sud euh, léegi ñuy wax ne da nga wu ci ginna ki nga xamante ni mooy ministre Amadou Hott mhm. donc qu'est-ce qui s'est passé ñu jékki-jékki gis ñu ne Gouy Diaw s'est rangé derrière ki nga xamante mooy Abror ndax euh, c' est une affaire de profil wala juste euh, day topp rek li nga xamante ne moom mooy Macky Sall mais imposé ne diw ma fa war a nekk. Euh, xam nga Mor y a une chose qu'il faut retenir man comme ni ma faral di wax depuis ba ma ñëwee yëmbal ba léegi ba ma jógee France ñibbi si yëmbal ba léegi lu ma fa investir pour jàppale askan bi kenn mi lebalu ma ko kenn mayu ma ko. donc je le fais en âme et conscience parce que dama bëgg sama gox amoon euh, ambition nekk maire te ba léegi ambition boobu dañoo si man mais bul fàtte ne man je suis membre du PLD And Suxali yi nekk un parti yi nga xam ne c'est un parti dirigé par le docteur Oumar Sarr nekk aussi parti bi nga ne si gouvernement bi la bokk donc il est illogique pour moi tey ma am benn ambition ba pare ñun ñëpp ñuy continuer di xeex parce que affaire du ambition personnelle intérêt yëmbal moo jiitu tey inter yëmbal li mu jiitoo mooy ñun tey bañ yegg see dañoo ne yëmbal on a vu qu'il y a un problème de sécurité. mais de sécurité mooy barrage. non xam nga xam nga deful poste de sécurité poste de police la def te poste de police bi bon c'est vrai que nit ki bu defee benn affaire man je suis je suis un vrai démocrate c'est-à-dire bu nit defee lu baax da koy da nga koy tàccu mais bu doyul dañ naan nan la ñuy def pour dool yi yëmbal xam nañu yàlla phénomène phénomène agression yi dafa bëri parce que am na yenn heure boo fa génne laal kooku moom ala kulli allin donc euh, li ñu naan vol à la tire li ñu naan les les phénomènes euh, les effets euh, néfastes xam nga dans les zones criminogènes dafa bëri ñun bañ ñëwee dañoo ne on a on a une étude bi nga xam ne def nañ ko pendant cinq ans ñun ce qu'on est bañ ñëwee dañoo ne on va mettre en place des pick avec nos éléments de sécurité dedans en relation avec la police parce que aussi duñu kuréel on est dans un état de droit boo ñëwee en relation avec la police, tu fais ce qu'on appelle des rondes de sécurité. ronde de sécurité yooyu tous les soirs de 19h ba 7h du matin ngay dugg si koñ yi koñ bu nekk même boo fa jëlee juróomi jeunes yi nga xam ne si koñ bi lañ dëkk ñun ñu former leen jox leen tenue jox leen accessoires yi ne leen yéenay garder seen koñ chaque mois kër gu nekk même bu joxee 2000 francs li des ñun société bi ak subvention ñi am ñu jël ko en charge tey nee naa loolu boo ko doon def dootoo déggati agression dootoo xale yi déjà di ngeen jàppale ñu am si luñ jàpp bàyyi immigration clandestine yi parce que je pense que ñun ñëpp yëmbal lañ dëkk am na am na tey ay boy yi nga xam ne jëloon nañ gaal gi ça fait dix ans ba tey seen parents yi mënuñ ko ñu def seen dëj parce que gisuwuñ seen néew yi donc à un moment donné dafa am li nga xam ne ñun loolu lañ war a mën a indil yëmbal donc mu nekk benn volet deuxième volet bi ñu ñëw ñu ne dañuy dugg si affaire ASC yi que il faut qu'on parle xam nga tey boo ñëwee jël benn euh, chaque année nga jël deux cent vingt cinq mille wala deux cent mille jox benn ASC ñun ñëpp xam nañu yëmbal benn international mosu fa judd dañuy waxante dëgg kenn su fa judd nga xam ne football na sa équipe nationale tey boo jëlee deux cent mille francs nga football benn match yeneen match yëpp da ngay yor sa lekk di dugg si kër yi di yelwaan parce que on a tapalé mooy li nga joxoon subvention mairie bi lekk nga ko ñun tey dañoo ne on a signé un partenariat avec euh, benn société bu nekk Nantes bu tudd Semitaan pour l'obtention de quatorze bus de nee naa 14 bis bu ñëwee 13 bis yi ASC ñoo ko moom ASC yi nag doo jël bis yi nga jox leen ko rek nga toog deen seetaan parce que bu yàqoo duñ ko defar da jël bis yi bu nawetaan jotee ñoom ñu dugal seen joueurs yi ñu dem football yi nawetaan deux mois lay durer bu jeexee ñu def ce qu'on appelle transport en commun tata ñu ngi nii di daw 100000 francs la ñuy versé par jour te 33 places la yow même booy versé 50 000 ça jënd nga si jour jënd nga si équipement te fekk ne doo xaar deux cent vingt cinq mille francs yi la mairie di la jox chaque année te loolu dina permettre yéen même ASM dina dem ba mën a wutal boppam siège te dina dem ba nga xam ne yéen di ngeen mën a liggéeyante seen biir di bañ a jaar si banque di lebalante donc à un moment donné il faut qu'on aille au delà de ce qui se passe actuellement au niveau de Yeumbeul ñun vision boobu la amoon te pour revenir euh, man tey je me dis que important ñu ne kii moo jiitu kii moo jiitu parce que intérêt Yeumbeul moo ñu tax jóg mais nag nit ku ne da xam li nga mën ak say limites aussi tey on a la chance d'avoir un ministre de la République bi nga xam ne tey c'est un ministre de l'économie et de la coopération tey bu buñ ne mairie coopération la ñuy wax man tey bu ma ñëwee gis sama programme bi ma teg sur la table nit ñi jël nañ ko pour di ko véhiculer muy yow Mor Fall bu nekkoon yow la tey sax man man rajo ma si ginnaaw kenn ñun on travaille ensemble c'est une alliance voilà parce que bu ma ñëwee donc ñooñu duma ma leen respecté wu ma leen alors que ça c'est pas le cas doo ñëw liggéey pendant deux ans di jàppale ay doomu aadama di teg ay projet nit ñi di ko gis suba ngoon guddeeg bëccëg nga ñëw xëy benn jour nga sëlaxu te man chance bi ma am bi wax naa leen ko nee naa leen man man man je suis dans le privé man amoo ay problème poste su ma salaire xëy na maa koy defal sama bopp man du ma nekk fi di yuuxu pour que président gis ma suba pour dénk ma dara man yëmbal moo ma ñor c'est parce que j'ai l'amour de yëmbal loolu moo tax may xeex suba ngoon guddeeg bëccëg te là on va ñuy avancer di ngeen gis ne bon et puis ay ndaw lañ ah li ñu naan karaw gu ñu ñàkkul dara waaw ah, li ci kanam raw li bët. gis ne jamono ji gën a chaque fois ñu gis say poste yi ngay da nga bëgg a jàkkaarloo ki nga xamante ne mooy Bara Gaye nga ne da nga ki nga xamante ne mooy Bara Gaye c'est c'est pour pour pour def bilan euh, li nga xamante ne moom mooy euh, li liggéey ci Yeumbeul Sud wala juste am leen loo xamante moom moom nga doon ci ci jàkkaarloo Bara Gaye te te boobu léegi fexe ba am ko qu'est-ce que lan moo la motivé ba nga dama bëgg a jàkkaarloo ki nga xamante ni mooy Bara Gaye chaque fois ñuy gis ne nga am débat avec Bara Gaye débat avec Bara Gaye bu nekk loo xamante ni yëmbal foo toll mhm. loolu la ñuy waxtaanee dañ jibil bëgg a jàkkaarloo Bara Gaye jàkkaarloo ba pour lan la non xam nga jàkkaarloo bi xam nga tey Bara c'est le premier magistrat de la commune il a des comptes à rendre nit bu ñu la dénkee benn affaire yëmbal commune bi tey mairie bi ñun ñëpp ko moom tey bu ñu la dénkee li nga xam ne da nga ko askan bi ko bokk il faut qu'à un moment donné que tu donnes man j'ai trouvé qu'il y a des carences parce que nit mënoo nekk ci gestion pendant sept ans chaque année nga am huit cent millions de budget sans compter les recettes yi nga xam ne moom mooy juuti yeeg mooy recette taxi yeeg mooy lépp li nga xam ne ne mairie bi moo ko moom donc on tourne à plus de ay ay ay un milliard et quelque ba pare ñu ne tabax na fa benn lycée non astafurlah benn collège chose chose chose chose chose à saluer poste de santé poste de police bi ñëpp xam nañu ne Demba Ka ñu ko jox mais c' est sous le c' est sous le c' est la comme nan lañ koy wax sax su la euh, sous la magistrature de Bara Gaye parce que moom moo fi nekk bañ koy may affaire boobu donc dañ koy saluer mais boo tabaxee benn collège tabax benn case benn centre de santé tabax benn poste de police ak benn centre commercial en huit en sept ans man je trouve que nous les Yeumbelois on mérite mieux que ça. parce que nag tey quoi qu'on puisse dire bu nekkee ne yow euh, budget bi yëpp ay ay ay bourses yi nga xam ne ne pour da ngay xool ñi nga xam ne ñoo ànd ak cent ay koy jox ñi nga xam ne tey c'est pas justifié man je trouve que à un moment il faut ñu bàyyi di wax yëfu mbokk di parce que yëmbal moo ñu ñor te yëmbal la ñuy waxtaanee nit ku def lu baax da nga naan ko ah def nga lu baax mais dangay ngay gën a góorgóorlu mais quand on voit qu'il a des carences au niveau du du fonctionnement de la mairie c'est normal nit ñu toog nga rendre compte c'est pour ça que je vais demander à mais bon depuis lors ba léegi bon il a toujours euh, il a il a jamais voulu mais bon yaakaar naa ne un jour peut-être que bon il nous dira pourquoi. xam nga dugal xam nga yenn moyens yi pour que quand même yëmbal mën see gis sa boppam. mais fi mu nekk nii yow yow yow ba ban gis-gis la nit ñi am ci li nga xamante mooy li ànd ak euh, kii di ministre Amadou ndax da ngeen gis ne moom moo nekk le meilleur profil parce que yow di am nga profil bi ñëpp xamoon nañ ne biir yëmbal mais ki nga xamante que c'est presque ay un an yi la ko la ko waaye yëmbal commencé di dégg di xam kan mooy Amadou Hott mais xamuñu ko woon mais yëmbal si di bañ <laughs> yi di ñëw parce que ñàkk ñàkk booloo moo taxoon ngeen ñàkk maire yu bari yi gañe wala bi bi pas euh, da di topp rek li nga xamante ne mooy ndigalu président Macky Sall comme ni nga waxee Macky bu nee diw la même fekkee yow ki ñuy samp yaa xam ëpp euh, profil yaa ko yow gars yi gën a xam da mujj rangé si ginnaaw rek il faut comprendre c'est que euh, Bara yàgg na ko wax nee na chaque fois bu ñu demee élection dama leen di gagner parce que booloo woo leen donc xam nga nit nag bu lay jox yenn arme mi da nga koy jëfandikoo contre moom comme loolu moo taxoon mu ñu mus ñu gagner moo tax gars ne ren cette fois dañuy boole suñuy doole yëpp pour que ñu mën ko affronter te gis neen tey sondage yi gis neen tey li nekk terrain bi parce que boo gëlee coalition bi yaa a Modou Mbène Diop qui est Euh, parce que Bara bu gagné 2014 c'est grâce à Modou Mbène euh, ministre Amadou Hott mu ngi ci biir Oumar Sow mu ngi ci biir euh, Djibril Diaw mu ngi ci biir donc sa c'est des yi nga xam ne tey bu ñu boolee suñu doole ñun ñëpp au moins ça nous ñu mën a jàkkaarloog moom donc tey euh, c'est ce qui a fait que du question ne ndigal président parce que ñun ñoo waxtaan suñu biir parce que y a coalition de la mouvance présidentielle bi nga xam ne moo nekk yëmbal tous les partis sont représentés ñu ñoo waxtaan suñu biir te tamit à un moment donné ñëpp mënuñu jiite euh, Mor. il faut qu'il y ait euh, il faut un premier il faut qu'il y second xam nga il faut qu'il y ait un suppléant il faut qu'il y xam nga mais te tamit tey ren boo gisee on a innové c'est que dañoo bëgg nit ku nekk compétence bi nga xam ne loolu nga mën ñu jagleel ko foofu jagleel la ko foofu comme ça au nga xam di nga amal njëriñ askan bi mais tey bu nekkee ne da ngay ñëw rek nga ne voilà ñun ànduñoo ak Amadou Hott pour ses c'est ñun dañoo am benn conviction bi nga xam ne moom lañ gëm c'est-à-dire c'est l'intérêt de Yeumbeul qui au-dessus tout après nag euh, ñun tey dañoo yombalal président wa pour waa APR ñi bokk APR ñun dañ leen yombalal liggéey bi au lieu que ñoom ñuy xëccoo comme li nga xam ne mooy xew ci yeneen yeneen euh, communes yi ñun on a voulu montrer que y au sein de du Benno. mais xëccoo bi xëccoo bi ba léegi daal des na kenn am na kenn koo xamante ne moom ba il maintient sa candidature ndax loolu mënu andi benn gàllankoor ci yéen ci liggéey bi nga xamante ni mu ngi parce que yéen yéen a bokk parti bi mais moom il persiste à maintenir sa candidature. waaw xam nga Oumar il a le droit parce que nee na il est candidat la candidature donc euh, il a droit de poser sa candidature mais tey ce qu'il faut comprendre dafa am li ñu naan bennoo au niveau de Yëmbal et la mouvance présidentielle te bennoo boobu y a tous les représentants de parti qui sont euh, qui sont qui sont entièrement sa position bu ne dafa bëgg a nekk candidat à la candidature parce que Benno bi mooy choisir kan mooy nekk candidat. Mm-hmm. mais après c'est un choix personnel qu'il a fait on le respecte et puis man j'ai pas de d'observation à faire à ce niveau mm-hmm. mais nag tôt ou tard bon je pense que j'espère que ñun ñëpp on va se retrouver autour de l'essentiel mooy une seule euh, une seule candidature pour pouvoir gagner la mairie de Yeumbeul pour que au moins ñu mën a changer visage yu Yeumbeul bi. 5 minutes moo dese ci euh, émission bi ñu koy signalé donc fi nekk nii yow euh, projet yi nga xamante ne moom moo fi yéeg muy wàllu ASC yi wàllu sécurité bi euh, wàllu emploi des jeunes yu ni mel ndax yooyu donc da nga koy ranger sa tiroir ba ba keroog ngay accéder wala yooyu da koy ñëw da koy. jox ki nga xamante ni mooy ci ngeen ki ngeen jàpp ne moom moo war a euh, jël yëmbal si ngir ngeen mën a gën a euh, ngir yëmbal gën gis boobu gis nga moor bëri mooy tëli bi ba léegi pareegul mm-hmm. tëli jàll gis ngeen ni mu mel ak yéen ak yéen te ba léegi mu ñoo fexe ba man tey dama lay dama lay rassuré xam nga ne sama taxawaay démb ak barki démb tey lay gën a fës parce que boo xoolee tey tey li may wax yow tey nii gars ñu ngi def foofu ay distribution de jeux de mots yoo dama ko jox ASC yi te boo xoolee pour waxtaane partenariat bi ma def ak équipe de lance le 19 ak le 20 novembre euh, technicien lance yi dañuy ñëw fii def détection des jeunes te yëmbal am nañ ci 20 jeunes yi xam ne ne da boo war nañ bokk ci affaire bi donc ñun tey loolu lañ mën nee naa la man tey rangé wu ma nekkuma ci ginnaaw nit ah wala euh, ñu ne non diw dafa ànd ak diw donc man bu nekkee ne li may wax ñor na ma te yëmbal moo ma ñor donc du ma was du ma mës a teggi suma tànk te tey pour vous rassurer que lépp lu mu mënoon def démb ak barki dem pour soulager population bi jàppale leen teg ay projet pour que mu nekk autonomisation des femmes mu nekk xale yi am si lu ñu jàpp mu nekk leneen ak leneen tey laa ko gën a mën a def donc je tiens à vous rassurer que euh, ñun ñëpp one est des maires on est des potentiels maires on est on est waxtuñ sax wax candidat yaakaar naa nit ku nekk tu es maire de ta localité donc euh, la sant di la gërëm Mor et puis j'espère waxtaan bi voilà lépp lu si dëng rek ñu xam ne rek boo du sama coobare mais c'est xam nga yëmbal moom boo koy wax amul yëmbal dafa nekk li nga xam ne ne daf lay porter si yeneen dimension et puis bon euh, di ñaan yàlla aussi bon li nga xam ne moom lañ sumb rek muy investiture yi ñu yi rek yàlla defal ñu sutura te ñu xam ne daal yëmbal ñu ñëpp a ko bokk du xiiroo du ŋaayoo du saagante parce que ku gaañ doomu yëmbal tamit yaa koy dem seet hôpital ku si rey doomu yëmbal tamit yaa koy dem jaalo ji donc ñu bañ a yegg foofu yëpp te xam ne rek euh, ñun ñëpp ay doomu yëmbal lañ te intérêt yëmbal moo ñu moo ñu gën a moo a soxal. lan la ñuy xaar ci jibi ci ci jibi ci euh, élection législative euh, yëmbal. waaw mais je trouve que ça c'est mettre les charrues avant les bœufs avant ñuy wax ay waxu député man je préfère déjà wax d'abord li nga xam ne mooy commune bi man commune bi moo ma gën a ñor pour l'instant voilà et puis vraiment daal euh, nañu yàlla nañu yàlla dolli sutura quoi. donc mu nekkoon Djibi Diaw nekk euh, euh, expert en sécurité nekk aussi coordinateur suqali <coughs> fi nga xamante ni moom mooy yëmbal sud bi ñu waxtaan yu bëri bëri ci wàllu sécurité waaye tamit wax nañ ci li nga xamante ni moom mooy candidature bi nga xamante ni moo nekkoon biir yëmbal sud ak li nga xamante ni def na ko biir yëmbal il a il a ci relation yi def na ci li nga xamante ni moom mooy biir jàkka yi ci benn jàkka yi laayeen dafa ay ay ay fontaine yoo xamante ni ñu am ndox bu baax foofu bu ñu ko naan ci kii def na ko ak projet yi na ko donc léegi euh, ñoom ñu booloo ni euh, moom mooy Amadou tout euh, ci li moom mooy bëgg-bëggam ci mooy sud day wax ngeen ko sax nee na léegi am na benn projet bu ñuy def fan yi yoo équipe technicien yu équipe lance war ñëw ngir mën a détecter ay joueurs te waaye yëmbal war ci mën a mën a bokk donc c'est ça moo nekk di am importance ci biir réew muy le développement local ñi seen bëgg-bëgg mooy seen développement aux localités te xaar ñu dara ci li nga mooy njiitum réew mi mais n'empêche le président Macky Sall bu fekkee gis na vidéo bi mu ñu gën a jëmbal mooy euh, personnes yu mel ne comme Djibi parce que ñoom ce sont des personnes yoo euh, ay ay ay volontaristes lépp loo xamante ni ci war a mën euh, ci gën a dem kanam ñu dugg ci donc leen jaajëfal yéen ñi nga xamante doon seetaan li di Rewmi TV saa techniciens yi nga xamante ñoo nekkoon ci ginnaaw ñoom sëñ Modou euh, Zoubairi ak ñi xamante ni mooy moo ak Pothio mi nga xamante ni moom moo nekk ci ginnaaw écran bi donc di leen jaajëfal di leen jox seen wàccuwaay jërë ngeen jëf